abonnez-vous xamal Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ngi sant yàlla bu baax jullu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha si xam ni Modou Mbenda ak mbooleem xalifa yi ci réew mi yëpp di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di nuyu bu baax sunu mbokki internet yi yéen ngi fii ci te seen YouTube bu mag bi xamal ma TV tey nag ñu seet seet si jànkatu xasida bu mag di ndaanaan alaaji Ibrahima Mbaye di taalibe borom Daaru Muxti di jànkatu xasaayit waaye nag li waral ñu seet si ko tey dafa am bis bu muy waajal ah ñu bëgg koo jox mu nuyoo ñu doog a dugg ci waxtaan wi Ibrahima ñoo ngi lay nuyu fii ci xamal ma TV asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikhul Khadim di ñaanal Cheikh mun Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér ba li mu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu defee ko nam ko soobee ak jullit yeeg murid yeeg taalibe yi di jaafal jaajëfal borom daal moxti suñu yaakaar di ñaanal Cheikh Sidi Muxtaar Mbacké yàlla dolli leeram moom Cheikh Awa Balla di ñaanal suñu ñaari waajur yi yàlla dolli seen i leer fa ñu tëdd te yaatal seen bàmmeel bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëñ Modou jërëjëf sëñ Ibrahima ci nuyoo bu matale boobu dañuy dem rek ci li tax nu ñëw fi muy bis boo xam ne da koy taxawal ah, yaakaar naa ne ren mooy huitième édition ci leen jàpp nga ci fàttaliku say waajur di leen ci ñaanal muy lu am solo di ci sant borom daaru muxti Ibrahima ana bis bi noo koy waajale ak noo ko noo ko noo ko daan taxawee bis bi noo daan taxawee bis bi. waaw sëñ Modou comme nañ ko daan defee rek. Mhm. daal dañ ci am yaa yéene ñaanal ci suñu ñaari waajur yi nga xam te ne ñu meññ. tax ñu xam lépp man lépp eh, ci kaw suuf bu ñu daan leen defal bu ñu bu bis seen bis dellusee rek ñu jàngal leen alxuraan kaamil mhm. ñaanal leen yërmande suñu borom fuñ tëdd ndax ñoom fuñ nekk saa su nekk dañ koy soxla mhm. def ay bernde jox ko jaami yàlla yi ndax wayjur yi dañoo dañoo nekkoon ñoo xamante ne bi dañ daan yaatal ci wàllu xewal mhm. eh, ba tax bis boobu dañuy bëccëg gi dañu koy def ay xewal rek joxe ko jaami yàlla yi bu ngoonee tamit ñu jàng xasida yi ndax wayjur yi dañoo yar ci xasida nàmpatal nañ ci xasida bëggun ko lool nag dañ ci def seen alal ba tax ñu jël suñu tab suñu alal ak suñu lépp ak suñu ñooñ ak suñu xarit suñu wëlare ak lépp lu ñu ci jox ak lu ñu ci jëflu rek ñu def ko ci jànkati xasida yi bu boobaa ci guddi gi incha allah rabbi ba foo xamante ni bi rek fa la ko yàlla yemloo ndax bis bo bis bu nekk rek la cay yéene yi doomu aadama moom mooy defee kon nam ko bëggee waaye yàlla moom moo xam fa mu yem incha allah daal loolu mooy suñu yéene waaw bis bi damaa bëgg sëñ Ibrahima nga wax ma suba gi buñ xëyee li ñuy def ak bernde yi nu muy demee yooyu ndax dama ni ma koy waxee rek saa su ne soo wootee bis xam moom buubeen yeeg mbaayeen yi dañuy bëgg a ñëw ndax xéewal yi ba xam dina am xéewal ak waaw waaw sëñ Modou ku wax ku xam bisu murit xam ni lépp xéewal la mhm. ku xam bisu murit rawatina nag bisub jànkatu xasida nga xamante ni bi lu mu xewle mhm. eh, daayira sax boo ko xewlee da lay lajal wit nit bari loolu macha allah ndax cofeel guñ la sopp ngir sëñ Tuubaa mhm. daal dinañ jàng alxuraanu karim ci njiital sëriñ Xadim Jaañ fii Eh, bu ñu jàngee alxuraan ba pare dinañ def ay bernde ndekki incha allah waajal ay añ yu murite yoo xamante ne bii ba tàkkusaan ku ñëw dinañ la jox nga xéwlu ba doyal guddi geet ba keroog ñuy commencé programme ba bët di set am na ñu nekk ca wàññi ñoo xamante ne bii loolu rek lañ féetewoo ku ñëw nañ la jox nga xéwlu bu baax a baax ngir way juree nañ ko daan defee bañ a dund ak nañ ko bëggee woon nga xamante ne nit da daan jóge ci àll ba sax way juru jigéenu fat la jox la nga lekk loolu lañ ca bëgg ba tax ñu defee ko noonu mhm. bu demee ba benn waxtu benn waxtu bi nag luy tomb luy tolloog vingt deux heures mhm. eh, jàpp vingt trois heures ñu ñëpp ñu daje si tànt ba nag jàng xasida bu baax nag sant sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima borom Daaru Muxti incha allah waaw kon kon sëñ Ibrahima bis bi naan wàcce kaamil jagleel ko way jure ak way dawli incha allah ak borom daaru maxti mi tax nu koy def. incha allah buñ demee ba boori tisbaar ñu def bernde yi. incha allah comme ni ko baaxoo defee. waaye nag fu 22 heures jotee ñëpp dañuy daje ci tànt bi. dafa am jànkat boo ko jagleel wala mboolem jànkatu xasaayit yi wala yaa koy jàngal sa bopp. waa am na jànkat yoo xamante ne bi bañ ko daan def ci kër gi ci kër gi ma nekk fii nga xamante ne bi fii la ñuy defee émission bi dañ ko dugal ci biir kër gi ba génne ko ba mu dem ba ci mbedd ma. Mhm. daawuñ ko wute ku ci mel ni Serigne Modou Galas Mbaye di sama mag di sama kilifa ak Serigne Ablaye Seck mi xam te ne sama Serigne ci xasida yi mm-hmm. mosuñu ko wute def nañ ko fii commencé ko ci daayira te ñoom ñëwoon nañ ci mm-hmm. ñooy jànkat yi nga xamante ne bi moom lu man di xewet ñoo koy mujj ak Serigne Ibra Samb di sama doomu ndey waaye tamit jànkat yi nga xamante ne samay nawle lañ di samay rak ñu bokk gox bi ak yeneen gox yu mel ni yëmbal ak caaroy ak benn baraag ak jàmm gën nekk rek woo naa la ndax boo ñëwee kenn ku ci nekk ñàkku ni waxtu wa nga ca war a mën a jàng am nga ko am nga ko ca bu bu jotee bu ñu la gisee dinañ la jox nga yëkkati xasida ndax ñoom it mm-hmm. samay nawle lañ waaye samay rakk lañ te dañ may bëggee ma leen di bëggee kon nag ñëpp laa woo mm-hmm. incha allah rabbi incha kon nu déggandoo ko noonu woote baa ngi noonu wanoon mboolem ku yëkkati xasaayit ak mboolem soppeem yi ak xaritam yi télé bu mag bi moo ko seet si woon muy seen youtube bu mag bu tudd xamal ma tv ñu ngi ci woo ñëpp nu abonné te di ko partagé ndax loolu mooy doxal liggéey bi sëñ ma damaa bëgg nag nu woote ndax bis dafa xaw a metti nga woo sa soppe yi ak sa xarit yi fu mën a ne nga woo leen ci bis bi ndax tele bi ñëpp a koy seetaan xamal ma TV. waaw ginnaaw bu ma jiitalee ci woote bi Serigne Jili Mbacke mu sëñ Modou Mokhtar mu Cheikh Balla mm-hmm. <coughs> ci woo sama kilifa di sama sëriñ ci xasida yi di sëriñ Paate Mbaye ca itali mm-hmm. ak sëñ Assane ak soxna Bunaama Mbaye ak soxna Ndeye Mbaye ñi xam te yàlla dogal ñu nekk bitim réew ak sama wëllëre ya fa nekk ku ci mel ni sëñ Demba Seck sëriñ Modou Guèye ak sëriñ Samba Guèye ak sëriñ Pape Guèye ak sëriñ Gorgui Diop ak sama kilifa yi nekk fii ku ci mel ni sëriñ Modou Mbaye mi ne fii ak sëriñ ak may sax sama ñoo xamante ne ñoo bokk lépp bokk nday ak baay bokk xaside mhm. di ci woo daayira maam jaare surtout daayira soxna jaare isni nisaay soxna maam jaare silla ak daayira soxna jaare soxna ak soxna bintu jenn ak mhm. jaare ñu yëkkati seen teraanga yu kawe dina ko jox ak daayira nooru daare ni bu sëriñ Taala Mbay daayira wakaana ak sëriñ Abdoulaye sëriñ Adama Lay ak daayira sëriñ Ibulaay daayira Miftaahul Muna sëriñ Moussa Kebe mi xam te ne sama xaral sama wëlëre bis bi fu mu toll moo ko fa tollal mhm. di ci woo am di jàmb yi xarit ak soppe yëpp rek buñ ko limee rek mën nañoo fanaan fi wala mu guddi waaye daal képp ko xamante ni bi xam nga sëriñ Ibrahima Baye wala xamoo ko rek woo nañ la ci di woo daayira soppe sëñ nag ca parcelle impôt et domaine soxna Anta Sy bëgg Fàllu di sa wëlëre sa xarit léegi rek mu ngi lay laaj ñoom it mu ci liggéey bi waaye di ci woo tamit eh, sama soppe yi nga xam te ne ñoo nekk fii ci ci Kër Massar fii ci benn baraag xamante ne bi ñoo bokk liggéey bi xamante ne bi ñoom soxna yu baax yooyu ma jàngaloon conférence bi la nouvelle révélation ñoom Maam Jaara Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ak sama goro sama xarit sama soppe yi waaye nag di woo sama soxna nag ci Touba Mbacké ak ay xaritam ak soppeem waaw soxna Babi soxna Marème ak xaritam yi fi nekk ak soppeem ak yëpp mhm. di jaajëfal nag euh, wax di yàlla xamal ma TV di ñaan nag ci daraje Taysiroul Asir barke Cheikh Balla amiin nga xam ne sama programme yi bokk na ci programme bi yi nga xamante ne bii ñooy sa njëlbéenu programme. Mm-hmm. ñu ngi ñaan ci daraja yi la yàlla yokk ba nga xamante ne bii télé sax da ciy am ak rajo. ci am nañ bégte ndax lii wax dëgg yàlla ñun mun ñu ñu la doon fay te yaa xamuñ lu ñu lay fayee. Mm-hmm. waaye ñu ngi jàppante yow kóllëre na te na ko waa Lamp Fall defee woon nag Serigne Ablaye Seck te bañuy bañuy mel nii ba mu dem ma nekk Lamfal TV ak Lamfal télévision. Hmm. ñu ngi ñaan ci daraje Serigne Fallilou yal na la yàlla yóbbu foofu ci barke Seex Xaadim yéen Modou di la di la jaajëfal bu baax nag. jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima Mbaye lan seet si woon xamal ma TV léegi sëñ Ibrahima balaa noo yëkkati jataay bi da ngay wax ay bayti xasaayit ñu ñaane ko ndax jànkatu xasaayit nga bisimilah sëñ Ibrahima. xamdi wa liman kuli bihi saara lahoridan doona suqutin عند سرسارة له سناء وردوان بلا ثقة مسخدني من بنيه ديمان أنزارا لله كل لدى أبار مكرمة من ارتحرنا وفيه أجم من سارا إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيارة فارقوا دارين أو سار هذه شيخ الخديم